remercier ñëpp di nuyu ñëpp di euh, di remercier ministre bi nga xam ne ñëw na fi tey defal ñu visite parce que lii dëpp ñu nekk fi man mosuma ko fee gis inspection du travail aussi musuñu fee ah man mos ba fa nekkee ba léegi musuñu fee ñëw ma gis leen parce que fii ay professionnels ñoo fi nekk wax naa ko monsieur Taro danaa ko vous la crème euh, des employés euh, pour les permanences à Dakar. heure de pause tu travailles votre heure de pause on vous donne bon 1500 ça c'est pas normal ou bien a loolu moo tax ñu ñu taxaw di wax aussi collègue yi nee nañ sunu sunu sunu sunu daalu fer bi ñuy imposé bala ngay dugg nañu jox ay daalu sécurité ñi nga xam ni war nañ ko am peut-être liggéey bi ñenn ñi côté yi nekk mën nañ ko bañ a am ñi nga xam ne dañ ko war am nañ ko jënd ñu jox leen ko même gants de travail bon depuis un certain temps amatuñ ko te ñun dañu nekk rayon frais ñëpp xam nañu rayon frais fay laaj dafay sedd il nous a remis des gants l'autre jour mm-hmm. c'est bien mais ça reste prix yi ñu war a am tam ci liggéey bi ñuy liggéey ci conteneur yi ci dugg ci chambre froide yi di dem ci conteneur yi di yëkk ci euh, produit yu diis loolu aussi dañ ko war a xoolaat ci indien yi ñu doon wax di ministre doon wax aussi ñi nga xam ne ñoo jógee Inde ñëw man mënu ma concevoir nga nekk di liggéey pendant euh, dix ans ou huit ans ou quatre ans benn indien jógoo jógee euh, Inde ñëw mu seefe la ci jour bi te li ci li ci garaaw mooy da nga koy former yaa koy former man ma ñun ñoo leen di former ci rayon yi xamuñu dara ñoo leen di jàngal francais ñoo leen di jàngal liggéey bi et tout buñ ko mënee tuuti commencé nag di la buntu xatal kee taxaw na kee liggéeyul parce que li ma li ma bëggoon a surxal foofu mooy su fekkente ni liggéey nga réunis ñëpp xam nañ liggéey réunis da ngay ñëw jëli produit bi mu manqué fii mais yow su fekkente ne rangé nga à un certain temps liggéey bi wàññi ko nam war nañ a may foo mën a dem toog ci supermarché bi naan sa kafe wala naan ndox mais loolu amu fi boo wéeroo taxaw sax ñu la jugal moo naa mi woo oh, qu'est-ce qu'il y a non non nañu bàyyi ñu bu liggéey bu fekkente ne liggéey ni à ah, certainement ñu bàyyi ñu dem toog récupérer parce que ñu bëri fii dañoo feebar am problème mu tànk lu ndaw ngeen xëccante wala mu yónni la sax yónni te jokku ci liggéey bi donc dañ koy def par par courtoisie parce que mën nañ dem ba seex ak ñoom jàmm mais bu bu bu euh, accrochage amee rek lan lay wax yow la dàq nañ fi ñu bëri dàq nañ fi ñu bari ndax loolu c'est pas normal c'est pas normal problème boobu lañu ñu am ak intérieur que bu ñu demee ba ñu defal ko fu mu fu nekk ci ginnaaw mu am climatiseur ci ginnaaw ñun ñu fi liggéey nga xam ne ñun ñooy liggéey jox intérim ñun kenn defaluñu loolu fi ñuy fi ñuy noppaloo ci ginnaaw bu tawoon léegi bu taawoon tey day tooy ay carton lal pour se te bu doon taw di taw nees bu repose yoo dañ naan la génnal yaa xam nan ngay débrouiller te fii cité la soo génnee amoo kër goo dugg na ma bëgg a tourner dama bëgg a julli dañ naan la non kon war nañ am fii lépp luñ soxla. exclusive ku ko xamoon. amuñu woon euh, délégation syndicale amuñu woon collège des délégués amuñu woon représentant du personnel ku ko xamoon it xamee ko ci personnel boo xam ne ñoom ñëpp daa nekk ay intérimaire lañ ci intérimaire yooyu amuñu contrat ak ki leen employé sax ba faf ñuy xalaat am contrat ak exclusive muy loo xam ne anomalie bu garaaw la bu inspecteur ñëwee première visite. mu dellu euh, jotuñoo topp ndigal inspecteur mu ñëwaat deuxième visite mu xaw a loolu troisième visite bi nga xam ne maa ko laaj mu wàccee fii mu wàcc fii euh, exclusive avec fermeté ba mu ñëwee ils ont observé ils commencent à observer njëkk nañu régulariser cinquante mais dafa tuuti dañ leen jox ab dans six mois ndax entreprise ñun li tax ñu jóg ñëw ñu pour faagaagal entreprise ñëw ñu pour Euh, jàppale ñi ñu sottee ñun administration dañoo war a tëddee njaxanaay lu ñu yitte mooy sauvegarder outil de travail ndax am na noo koy buntu xatalee kii nga xam ne moom nga bëgg a aar danga koy far ba dangay dem ba lor ko te loolu du suñu yitte euh, waaye nag lépp na méngoo tegu ci jub jubal ak jubanti mooy réew mi dafa am sart dafa am loo xam ne mënuñu ko fi accepter ci dëkk bi. Euh, réew mi dafa am ay sart ku nekk moo war a méngoog sart yi muy employeur muy employé à commencer par ñun ndax bu ñuy def visite bi fii dañ ko jaarale ci yoon euh, moom ci boppam dañ ko yëgal te amoon nañ def visite inopinée sax mais ngir rafetal lépp loolu la def euh, ba tax na am na ci poñ yoo xam ne bu inspecteur saisiré bu ñu bu ñëwee def visite ba am na fukk ak benn poñ yoo xam ne yu gën a am solo yu gën a garaaw yooyu la leen soññ pour ñu méngoo ak li yoon wax ñu ngi ciy góorgóorlu amul jaajëfal ci koo xam ne euh, dañ ko woo pour mu ñëw respecter yoon waaw xanaa di ko ne euh, na respecter délai bi rek euh, te na ci góorgóorlu bu baax régularisation boobu mu ngi koy boole ak heure supplémentaire commencé na ko fay ak it Euh, quelques aspects des conditions d'hygiène visité nañ toilettes yi visité nañu fépp war na ci lu am na yu ñu ko gën a soñaat ci yooyu mu des ñaar yoo xam ne dinaa ci taxaw benn mooy travailleur expatrié ndax euh, mot na quarante salariés yoo xam ne euh, lu Sénégal ñu bëri xamul tey ak loi sur le continue locale booy employé ku dul sénégalais am nga obligation jëbbal ko ministère du travail moo ko war a valider au préalable balaa euh, mu war a mën a nekk sa collaborateur donc quarante personnels yooyu dañu ko war a jëbbal euh, ñi nga xam ne dañu sénégalais ñu fi employé ba ñu saytu ba xam ndax yooyu emploi euh, fii ci Sénégal amul ñu ko mën a prévoir parce que yooyu li ko yoon jagleel mooy ay emploi technique ou emploi spécifique yoo xam ne sur le marché du travail au Sénégal raar na wala amut waaw loolu ñu leen ciy ñaax bu baax délai de un mois ba ñu laaj mënuma ko 10 jours laa leen may te danañ ko jébbal suñu table beneen bi it mooy élection délégué du personnel Sénégal dëkku mu droit état de droit la dafa am loo xam ne it euh, mënuñu ko accepter ci dëkk bi loolu dañ koy wax mu leer c'est la seule liberté bi nga xam ne droit pénal sax moo ko protégé gis nga ku ko respecté wul il y a ce qu'on appelle le délit d'entrave à la liberté syndicale mooy bennum liberté ci domaine travail boo xam ne mën nañ si ci tëj sax ab chef d'entreprise tey Sénégal dem ba bokk ci kàngam organisation bu gën a rëy ci Nations Unies te cër bu ñu ci cëral ci dernière CIT mooy euh, ñu bokk ci commité de liberté syndicale maanaam ñun ñoo war a aar mënuñu nangu yenn suñu dëkk loolu mënul nekk ba tax na Euh, ñu yaakaar ne dañu yegg ci wàllum euh, utiliser doole moo tax déggoo nañ ak euh, le chef d'entreprise monsieur Rajwani ni ki le six prochain ti dinañ fi tenir fii élection des délégués du personnel ak it déggoo nañ ci anam yu koy defee inspecteur du travail dina yebal kenn syndicat yi yebal pour ñu tenir may jeexal ci travailleurs yi ne ñëw ñu fii pour Euh, xamb wala puus leen ñu ñàkkal respect seen employé il lui doit respect il lui doit subordination dans le cadre du respect du travail donc kër dafa am kilifa ñëw ñu fii pour jël xilifteefu kilifa gii jox leen ko ndax moo leen employé mooy seen kilifa li fi respecté yoon moo gën a bëri néew na trop ñiy jalgati yoon ci wàllum travail ba tax na Euh, nekkuñu fi pour yàkkal les fleurons de l'entreprise ñi nga xam ne ñoo fi tabaxal dëkk bi euh, permettre ñu bëri ñu suturallu euh, wax dafay leer lu ñu tax a jóg moy jub jubal jubanti mi ñu réew mi sant mi ñu njiitu réew mi sant plutôt te ci la ñu nekk. xamante ne mooy suñu secretaire général muy Amadou Massar Sarr li ma mën a wax mooy ko ne mbooloo mi nga xamante ne ñoo teew fii yàlla xam na ne ku ci wax xamu ko ñu ci bëri si ñoom xamuñu ko. te moom pourtant moom nee na moom moo ñu représenté comment se fait-il maanaam yow nga mën a nekk représentant yu nit te ñoonaam ñi nga représenté xamuñu la yàlla xam na ne ñii yëpp koo ci laajoon mu ne xaw ma ko yi ma saar saar te pourtant lépp loo xamante ne ñoo ngi koy dund fii nii au niveau des SATS moom moo ñu koy teg. lan li ñuy dund métti na bëri na parce que mun naa wax ne lu ci ëpp gis ngeen ko gisan ngeen ko seen bopp muy ko ne maanaam situation yi nga xamante ne moom la docker di dund dafa métti muy. premièrement si euh, comment dire euh, ci kii bi ci grille bi laay njëkkee grille bi maanaam machine bi buy ñëw gaal gi buy ñëw maanaam grille bi maanaam tey jii euh, tubaab bi dañ koy def niveau un maanaam bu ñëwee maanaam gars yi ñi nga xamante ne ñoo gérer gaal gi dañuy wax ak moom mun nañ ko yóbbu ba niveau quatre léegi ce qui oblige maanaam day daw alir léegi nag ñi nekk si amba bi di liggéey maanaam dañuy liggéey gaalu 42 000 tonnes dañ koy liggéey normalement dañ ko waroon di liggéey deux ou trois mois léegi dañ koy liggéey onze onze jours sukki li nga xamante ne maanaam mooy maanaam li lay woon ne maanaam tey jii maanaam dañ dañoo jàppe comme ay machine maanaam boo xoolee gal gaal bi ci biir kal bi gis ngeen poudre ba fa nekk amul kenn koo xamante ne ci docteur yi gis nga ko mu sol tenue de sécurité te bu ñu waxee port dañoo wax tenue de sécurité avant tout amul kenn koo xamante ne gis nga ko muy sol tenue de sécurité ñun ñii bu ñu wàccee dañoo raxasu ba pare door a mun a génn suñu loxo yi day ñuul kuk ce qui montre que ne laalu noonu mun nañ mun na laa jàpp ñu bëri si nga xamante ne ñooy suñu papa yi wàcc euh, comment dire dem retraite ñu bëri si ñoom dañoo am problème ñii am nañu feebaru bot ñii am nañu feebaru cancer. ñu contrat ce qui veut dire que le gars là euh, ma fii kii moo ngi fi depuis 2001 2001 ba léegi moo ngi moo ngi liggéey journal ouvrier moo ngi fi liggéey man maa ngi fi depuis 2020 maa ngi fi boobu ba léegi ngi liggéey te aw ma embauchement loolu noonu xam nga ne du yoon ce qui maanaam SATS euh, euh, moom décret la daan liggéey décret bi nag dafa obsolète décret bi dafa obsolète léegi nag dañ ko waroon renouveler ce qui veut dire que maanaam moom day liggéey sans pour autant moom mu am kayit yi nécessaire pour liggéey pour liggéeyoo ak nit moom moom syndicat la yoon dafa waroon ay ay légal pour mën a employer ay nit mais amul loolu ce qui veut diir ko maanaam moom dafiy exploiter boo ñëwee si ci wàllum heure yi ñuy liggéey dañuy liggéey douze heures de temps ce qui veut dire que ñun amuñu vie famille yàlla xam na ne man su ma nekkee si guddi gi di liggéey du ma gisante sama njaboot du ñu ay étranger ci dëkk bi du ñu ay esclave tamitam dama yaakaar ne esclavage boobu noonu jeex na fi loolu dafay war a jóge monsieur ñun dañ koy ñaan prise en sanitaire amu fi amut prise en charge sanitaire ah li ñuy fayee ko amut amut amut solo parce que ay 9000 la ñuy fay te moom ce qui est maanaam li nga xamante ne moom moo gën a moo gën a nekk problème mooy ko ne moom waruñu woon di fay sax parce que kii nii li ñu liggéeyloo entreprise la kooku moo ko gën a liggéeyal légal pour am ay employé moom amul légalité pour am am ay employé léegi nag simaar bi ñuy liggéeyloo léegi nag xaalis bi ñuy fay ci moom la koy jaarale ci Amadou Massar Sarr moom ci SATS la koy jaarale léegi moom mooy def virement ci suñuy compte léegi nag virement yooyu noonu day dagg lu bari suñu suñu suñu xaalis door ñu ko virer ce qui veut dire que maanaam bu dee suba si dañ lay fay 9000 francs bu dee guddi gi dañ lay fay 10 000 francs te maanaam nee nañ journée bi waroon na ëpp loolu foofu ndax nee nañ no 37000 francs 37000 la ñuy luyee léegi nag dañ ñuy dëgg di ñu ñu des 9000 francs ak 10000 francs léegi est-ce que c'est normal léegi nag lim ñuy dagg noonu lim ñuy dagg noonu inspection du travail moo ngi fi moom est-ce que moom bës na faa look ce qui veut dire que maanaam inspection du travail sax reconnaître ko reconnaître luñ ko parce que moom mësul xam ne kii nii am na ay employés léegi nag loolu noonu loolu noonu situation yooyu ñun ñu koy dund di ci ñàkkatu ñun saa yu ñu ñàkkatoo ñun ñu jàpp suñuy numéro tëj am na cinq personnes yoo xamante ne ñoom la ñu délégué woon pour ñu dem waxtaan ak ñoom ci négocier ak ñoom xamal leen ne situation yi ñuy dund war nañ kaa améliorer ñoom dañ leen a jàpp tëj seen i ñooñu liggéeyatuñ fi ba léegi ñoom ñoo ngi leen di mise à pied ñoom liggéeyatuñ fi est ce que loolu c'est normal ñun ñii di wax ñii ñoo ngi si ay risques parce que ñun bu ñu paree ñun dinañ ñu dàq mais ñun nañ ñu parce que comment se fait yow entreprise yow nga am entreprise yow am say journalier ba pare yow te saa ñu ñëwee maanaam du ñu xam ndax dinañ mën a liggéey wala duñu mën a liggéey dañuy ñëw toog rang bu ñu joxee gaal yi yow ngay daw di njëkkante daw ci di ci diw diw jël ma noonu lañ koy defee léegi nag yow mën ngaa ñëw doo am chef nga dem ñibbiwaat boo ñëwee mën nga am chef doo am accès si port bi loolu noonu est lépp loo xamante ne injustice la ci réew mi dafay war a génn dafay war a jeex moo tax ñun ñu am fit ndax lii nii yàgg nañ koo bëgg a programmer euh, moment pouvoir bee passé bëggoon nañ ko mais ñemewuñu woon parce que buñ ñu ko defoon ñun dañuy jële fii te police bu boobaa gendarmerie la fanaani fii li ji fii man li la mën a wax si gàttal mooy ko ne mot nañ plus de 3000 personnes mais 3000 personnes yooyu yëpp day déclaré ne à chaque jour dañ leen daf maanaam ce qui veut dire que maanaam ne ay carte professionnelle ay carte occasionnelle moom moo taxaw devant l' inspecteur ne awuma benn contrat ko seen congé comme natt la léegi yow li ngay am ci bulletin bi maanaam bulletin bi ñu lay fay par quinzième dañ ciy dagg chaque jour cinq mille francs chaque bulletin dañuy dagg cinq mille léegi boo dem congé cinq mille yooyu noonu ñuy dagg moom la dajale jox la ko ci moom ngay demee congé xaalis boobu ngay demee congé loolu noonu est euh, liggéey ministre yaa ko yónn gis nga poudre bi da ngay liggéey doo sol gant duñ la jox masque ñu ne exemple joxe na ñeenti gaalu navire bu nekk 4 équipe bu 30 fii benn 508 lan ñuy bàyyi ñuy daw di ko njëkkante wala ñu làmb suñu poos jël kalandoo ndax ngir bañ liggéey bi yàqu amul tabaski amul korite dañuy jàpp liggéey bi maa ngi wax sànq benn wax am ko koy weddi si ñoom. dañ leen di jox ñoom ñu ni ñoom ñooy chef yi muy professionnel di occasionnel dañ siy jox nit liggéey day ba gaal jeex du xam pentre gaal nu mu mel. dañ koy fay des fois da ngay soxla sa xaalis ñu yóbbu du teglal la deux jours trois jours da lebat ñii nii taxaw am na ñoo xam ne amuñu sax lu ñu añee. te nii ñu naan dañu ko may man bat si bii nii mi ngi nii trente cinq mille franc la versé Kotowa ñu jox ma tëni jox ma bat si bi jox ma sécurité jox ma kaks delloo ma soixante quinze mille soixante quinze franc man ne femme bi jëlal. fukk juróom boo ma ko naree delloo jëlal kon bu ne tenue ak affaire yooyu dañ ñu koy may man loolu man dina ma xaw a jaaxal. ku nekk ñaata gi si suñu liggéey kat da ngay def son travail nga déclaré wu. ministre de casse du redressement indi say contrat indi lépp teg defuñu ko ñu laaj nañ ko indiwuñu ko damay fàttali ni ma c'est euh, euh, man liggéeykat yi ñoo ngi déposé plainte contre ñoom ñu woo leen pour waxtaan pour jubal leen mais aussi bu ñu gisee a lii entreprise war am amu ko ñu laaj ko. mooy li ñuy wax déclaration double ba amu ko ñaar dañu def placement placement mooy da ngay jël ay liggéeykat jël leen jox leen beneen beneen njaati gi ko waroon ko def mooy foog nga nekk entre travail temporaire wala d'intérim ñoom laaj ñu ne boobu qualité boobu kayit amuñu ko kon li ñu def nii sax c'est une parce que non seulement déclaré ñaar ñu ngi placé waruñu placé ñett décret bi aussi bu ñu wax dafa laaj dafa ay conditions yoo xam ne bu ñu toogee ñoom waxtaan ak ñoom dañu ko laaj non pas rempli donc pour man l'entreprise est dans l'illégalité totale loolu en tant que instructeur SATS tur bi ci boppam am na euh, junj bu mu junju ba tax na mu war ñu déplacé wu euh, ma dolli ci ne employeurs yi ñoo def à plainte jébbal ñu ko mais pour l'information du responsable monsieur Sarr que je connaissais avant d'ailleurs je connaissais avant te ñun dañu nekk ci yoon jub jubal jubanti dafa am foo xam ne buñ ci tolloo du relation personnelle ndax bu doon relation personnelle du ma fi doon ñëw mais président de la république moo jot bataaxal jox ma instruction ma wàcc fii fekkee ñu waajal ñun tournée nationale moo tax li ma defoon mooy prioriser entreprise yi bi ci yi ma waroon wàcc donte bokkoon na ci liste bi ndax inspection du travail de Dakar boole na entreprise bi ci liste bu ñu waroon visiter. bu ma jotee ba bataaxal président de la République ma boole ko ci entreprise yu njëkk loolu jot na jar na ñu souligner ko mënuma dugg ci tontu lu travailleur yi wax lu employeur bi wax ak lu euh, inspection wax ndax ku nekk ci ordonnancement intervention yi defe naa ku am dégg-déggin dégg ngeen tontu yi mu des damay des ci ay principe ba pare rassurer les sénégalais les travailleurs et même les employeurs que li tax ñu jóg ñëwuñu pour jàppale kenn contre une autre personne dañoo ñëw pour li nga xam ne mooy yoon ci dëkk bi président de la république tënk ko ci jub jubal jubanti c'est pas du négociable benn ñaar. lii nga xam ne inspection du travail constaté na ko dinañu tënk bamtuwaat ko képp ki nga xam ne employeur nga quel que soit le statut pour lépp loo xam ne lu ci urgent ñu taxaw si décret nag ministre du jog dem ci bërëb ba di directeur di ko jàngal décret bi nga xam ne président de la république ministre day toog fu ñuy délibérer décret loolu ñëw ñu fii pour jàng lan mooy yoon loolu je tenais à le préciser ici euh, ndax yoon ñun dañ fi nekk pour sàmm ku nekk respecter yoon amul kenn ku ñuy jàngal yoon mën nañ toog nag ñu waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne yoon yu fi nekk euh, mën na am ñu teg yoon mu am jafe-jafe dañ koy waxtaanee waaye ñëw ñu fii pour jàng lan mooy yoon. bu loolu weesoo dama bëgg a wax travailleurs lu ñu njëkk a préoccupé les conditions de sécurité et d'hygiène ndax balaa ngay ne naam ne fa te boo nee naam parce que yaa ngi foofu boo fi jógee li lay dal dañoo faral ci entreprise Sénégal kenn du seetlu lan moo lay dal après on a visité les conditions de travail il y a beaucoup de choses à faire et à refaire am na yoo xam ne dinañ ko waxtaanee ak directeur parce que ñëwuñu pour faagaagal kenn entreprise muy seen outil de travail buñ ko ñëwoon pour xeex ko mais bu deewee kenn dootuñu fay impôt ñun état yéen kenn dootu leen fay salaire mais moom dootul am lu muy am suñu wareef suñu jëfin mooy ñu sàmm lu ñuy wax uti de travail ndax outil de travail mooy suñu trait d'union ñun ñëpp outil de travail du entreprise bi du travailleur mooy trait d'union bi boole ñëpp. état bu rey entreprise fu muy fayeeku impôt bu muy defaree port bii bu muy defaree yoon yi ñun dañ fi nekk pour sàmm entreprise pour entreprise jëm kanam loolu benn travers lu ñu pousse ba ñu juum si suñu mission ak loo mënti yuuxu ak loo mënti jël réseaux sociaux di wax waaye yomb na trop yor nañ administration bu xarañ xarañte boo xam ne bu fi tee bu fi nee tànkam teg xam na lu jaadu ak lu jaaduwul te kenn waxagul ñoom lañuy njëkk a déglu te lañ fi wax leer na. entreprise balaa muy wax respecté naa yoon yow d'abord sa nekkin ndaxam xam nga am déet loolu c'est du non négociable sur la légalité et la régularité de la structuration de l'entreprise elle-même te lu inspection xas a bind fi ñëw di ko commenter dañ koy respecté ci nii mbaa ñu respecté ko ci naa parce que foofu ab gendarme bu la arrêté buy ñëw pour nuyu la la muy njëkk a def mooy vérifier pour xam sa identité ndaxam war nga dawal am déet balaa ñuy doog a xam ndax sa oto bi baax na loolu déjà dafa sooxe donc ba tax na euh, lu ñuy faj du ci télé yi lañ koy faje dañoo ñëw d'abord mu am moo boo xam ne bëgg naa ko waxtaan ak yéen gis nga bu ñu nee docker par nature liggéey bu jafe la il faut ngeen nangu ne yàlla moo leen teg nattu ngeen am liggéey bu bokk ci liggéey yu gën a jafe ku jàpp ne euh, ab docker mën na liggéey ci benn bureau climatisé dañuy nax suñ bopp pourtant ñiy liggéey ci bureau climatisé génn ñu leen li gën am solo mooy nga am li ngay am ci dignité teral ko sa waa kër teral ko sa njaboot ba pare ñu respecté sa ak sa sa sa ak sa yelleef donc loolu lu am solo la su ma ñëwoon fii pour jéem a leen wax ne dinaa leen indi bureau climatisé dina leen indi condition yoo xam ne dama leen dama leen di nax da ngeen nangu ne seen liggéey moo mel noonu ngeen góorgóorlu ci ñu góorgóorlu ensemble lu ñuy respecter ce qu'il faut de légal et d'exiger muy seen sécurité d'abord li dem ci wàllu toni buñ ma fi def digression décret yu yàgg ak yu bees employeur bu imposer travailleur am bi nga xam ne liggéeyam dafa imposer à ses travailleurs une tenue ba mu imposer leen ko kenn du jaay kenn tenue te du cadeau bu ñuy joxe da nga war a joxe sa employeur tenue ka ci ka ci yoon génne mooy ki nga xam ne habillement libre la mais ki nga xam ne fu muy liggéeyee dafa laaj ab tenue am na sa wàll boo xam ne bu tenue bi nekkee élément de sécurité parce que tenue mën naa nekk visage de l'entreprise pour besoin de marketing mais tenu nekk exigence de sécurité comme ay dàll comme ay l'employeur est tenu de le donner à ses donc dafa am loo xam ne duñ ko fajee fii yëpp mais je vous promets que ñëw ñu fii pour doxantu wax ak caméra yi ñibbi dafi leneen lépp li yoon laaj pour kenn ko ci nekk méngoo ak sartu réew mi daa ñu ko def ci nii mbaa ci naa ci ci ci ci benn busol nu ñuy defee pour la survie de l' entreprise bi nga xam ne yéen da ngeen war a bokk ci ñu ko sàmm da ngeen war a bokk ci nga xam ne ñooy doxee productivité fii Sénégal dañoo ñeme léegi rale excusez-moi du terme dëgg la bu naaj bi xawee tàng ñu yuuxu góor ci naaj lay liggéey yóbbu këram loolu da ngeen koy nangu ngeen góorgóorlu